Euh, xarit yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg euh, seen site bi di Sunugal 24 di am mbégte lool ak bànneex ci dellu siwaat fas yéene àndaat ak yéen ci biir kër Mbaye ak ni koy defee sa su ne wax naa leen quand c'est important c'est ici euh, dans Sunugal 24 waaye rawatina biir kër Mbaye ndax lépp loo xamante ni daf leen indil tawféex dama ci dal di dox wax ci tey nag damaa dugg oto dem ba njàppaat xam nga mosu leen ko lépp lu leen yitteel ci xeetu tawat fëgg leen ko tabarkàlla macha allah di ngeen ci am lu kawe seen njort waaye nag bala maa sori dama koy bàyyi mu nuyoog mbokk yi sëriñ maam seex Dieysu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Mhm. allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim. Mhm. mboolem koo xam ne si ni yaa ñuy topp ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay siyaar ñu ngi lay jaajëfal. Mhm. soxna Mbaye ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax a baax a baax lu waral sëriñ maam seex Dieysu waaw suñ ma Cheikh jëy euh, suñ li ko indi mooy. Hmm. li ëpp ci lu ñuy liggéey. waaw dañ koy liggéey ci 313 te mooy limu jëy suñ. Hmm. Euh, nit ki suñ ko bëggee defal yenn kaaraange yu mag yi. Hmm. dañ ko koy defal ci limu 313. jëy suñ ndax 313 jëy yaakaar naa lu nit gàtt gàtt gàtt dégg histoire. Euh, dégg na xare ba dara. junni nit ci ñetti téeméer fu ak ñett ñetti téeméeri fukk ak ñetti nodd moo tax euh, bu la nit ñëpp bëggoon a fexeel. Mm. ci bëgg laa yàqal ci ñàkk kaaraange. Mm. boo jëfandikoo lenn ci lim yi nga xam ne da koy liggéey ci trois 313. Mm. man ngaa euh, ñi la doon bëgg a fexeel ñëpp liggéey ba delluwaat ci seen kaw ñu mu jàqul na nekk àdduna nag laa wax. tegal ma foofu sa baaraam. loolu nga wax dafa solo dafa laaj faram fàcce wàllu seet moom lay ñëw ak wàllu li saxaar ndax sëriñ maam Cheikh daf koy def. dama ci def boo xam ne li saxaar rawxaane yi laa ko tuddee. rawxaane yi. mooy boo xamante ni lu mu gàtt gàtt mën naa diire ñetti fan. waaye suñu la ko liggéeyalee dañ lay wax lépp loo xamante nii yow moo la concerné ci sa ngir dund. li sa xaar ñetti fan. ñetti fan lépp loo la concerné ci sa dund gi dañ la koy wax. te lépp luñ la ci wax loolu mbaa du la jëlal temps bu bari. waaye dina ko jël waaye nag dafa am ci loo xam gis nga dundu doomu aadama. Mm. lépp loo ko ci defal. Hmm. yow dafa war a jël temps warul lu ñu nekk lu ñu yàkkamti. dëgg la te doomu aadama tamit waroo di làmbatoo yooyu di wax di ko wax ci mbiram. Hmm. danga ko war a wax loo xamante ni bu dundoon juróom fukki hmm. day fàttali ko li nga ko wax waaye du du du ne di waxoon na ma nangam gisuma ko loolu mooy lisxaara waxaan nit ki nag ki nga xam ne dafa ñëw yàkkamti léegi léegi léegi. mën nañ koo seetal seet goo xam ne seetu jónni jónni la. wax li passé ci moom lim toll ak li mu ak li mu jëm génneel ko ci sarax yoo xam ne bu ko defee gis njariñ waaye li gën a wér ci nit ki mooy lisxaar rawxaani xam yow dëgg-dëgg yow yaay kan nga xam sa bopp xam nga dama da ngay dégg ñaan euh, diw daa war a xam boppam mhm. waaye yow xamal sa bopp ci loolu buñ koy wax ne ci saa sa lañ si jublu waaye fexee la xam sa bopp yow ci baatin bi ci baatin ba yow lan nga waaw d'accord euh, mu mel ni que sëriñ maam Cheikh mhm. euh, tabaarkalla macha allah na mu nekkee fee ca njapat mhm. du ay caaxaan du ay fo daanaka dafa mel ni dafa xaw a mel ni ku kuy tàng wala kuy xabtalu ci li nga xamante ni moom lay def li nga xamante ne danga koy def mm. di ko def ci sa diggante ak sa borom mm. di ko def yëg-yëg bi nga ci am mm. surtout loo xamante ni yow da koo jële ci say maam ba pare dond ko mm-hmm. ndaxte dafa am loo xamante ni fa mu jógee barke ba dafay des mm-hmm. mooy waral yenn ci liggéey yi buñ ko bëggee din dëgg-dëgg il faut nga fekk ñu foofu noonu mooy jàppand waaw njàppat te fekk na lépp fa la dooree ca boori Louga ca boori Louga ci région de Louga la nekk ca biir biir a biir d'accord comme jaral dëgg nag mooy tax nga nga ñëw fa waaye ku fa ñëw sa aajo faju lépp lu la taxoon a ñëw moo xam da ngaa guddee ñëw wala da xëy ñëw booy dem la la la taxoon a suñu borom dina la ko fajal. kon la ëpp ci li ngay mhm. foofu ca njaboot la. waaw bëri na ci yoo xamante ni même buñ ko bëggee liggéeyal nit ki te ñëwut sax. waaw ñun dañuy déplacé wu dem foofa. li ëpp sax liñ ci fi euh, ñu nekk foofu la nekk. waaw buñ la bëggee liggéeyal dëgg dëgg dëgg carrément moom foofu la ñuy toog mën nañ faa def ay fan yu bëri ngir sa jëmm. d'accord waaye li gën nag boo mënee ñëw yow mi liggéeyalu ñëwal. Mhm. ñu defal la lépp nga ci teg sa bët boo mënta ñoon nag ñun fa la ñu nekk fa la ñu nekk lépp loo xamante ne defal na la ko foofa ay samp lay doon ay yoo xamante ni daal yow da ngay yëg ne am na loo ko koo xamante ni ngi ci sa jëmm. Mhm. am wéruwaay doo yomba bu mhm. euh, bu fekkente ni nit ki am na problème dama gis ne surtout ki nga xamante ni def nañ ko dara. Mhm. mbaa ñu sànni ko dara. sëriñ maam Cheikh Dieye suñ buggul loolu. waaw da ciy mer da ciy dem ak doole ci wàllu kaaraange googu. ak wàllu aar sa bopp googu euh, euh, loo ñu ciy ñëwal. gis nga képp koo xamante ne yàlla dogal na ñu liggéey la man liggéey. Mm-hmm. xam nga nit ki boppam bi di métti lool. Mm-hmm. nga di ko xaarloo tey ak suba ginnaaw suba. dëgg la xamoo fi ko boppam bi mën a jëmee. Mm-hmm. man liggéey ak liggéey bi du mën a mel ci benn fan laa koy fekk. wallaahi wa rabbul kun mën a liggéey ak liggéey bi du mën a mel. Mm. ci benn fan la ñuy liggéey bi. doo léegi sax ñu naan yàq moo gën a gaaw defar. defar dëgg la waaw kin de liggéey ba pare. Mhm. ci benn fan la ñuy dindi liggéey boobu noonu. lañ koy yàq. dañ ko bu bëggee ñu delloo ko ko joxoon bu bëggee ñu sànni ko ci àll ba. te am na ci yoo xam ne sax retour am na ci xam ne sax boo ko defee pare force day dellu ci ko ko ko jegoon wala bu fekkee liggéey ba dafa yàgg ci yow lool. Mhm. lu toll ne lim la liggéey comme ça lim la yàqal. alalam dina yàqu lu toll noonu xam nga looloo tax ma doon ñëw ci yow di la wax ne la sëriñ maam Cheikh du ay fo du ay caaxaan. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que bëggul injustice. Mm-hmm. nit ki nga xamante ni da ko fekk mun toog jàpp ñàmburam nga yëkkati dara def ko. boo ñëwee ci sëriñ maam Cheikh dina la defal loo xamante ni dana dellu ci borom ba mu xam ko. dañ ba pare ñu defal la am na gis nga jëmm yaram. waaw xam nga nit mën ngaa posé na dara jinax lekk ko dee. waaw est-ce xam nga ne aw yaram dañ koy posé ne. dëgg la. man am na ci càngat boo xam ne bu ma la ko joxee boo koy sangoo. Mm. li commencé ci sa dox ba ci kii du ci laal dara Hmm. yow wur koo laal yow ndax bu ko laalee sax danse la ci yow. ndax. bu ko laalee. waaw danse la ci yow mi koy sangoo. ah loolu moom dina metti di. waaw waaye boo fekkee sangoo nga ko lu commencé ci fii ba ci sa suuf. waaw yow posé na nga sa yaram. ku la liggéeyati du am ñett fan ci kaw suuf loolu posé ne saw yaram lañ ko tuddee du laal sa bopp boo koy sangoo. ñàkk dem njàppat warul de. njàppat njàppat ñàkk faa dem wóorul de tabarkalla woo leen ko ci 77. 861 77 61 wala ngeen woo ko ci 6 138 38 70 138 38 70 moom mooy ñaari numéro bi mu ngi doon ci suuf écran bi su ko defee ngeen dem posone seen yaram ndax réew mi réewum posone sa yaram lañ toll guddi yi ñu toll ndax kenn bàyyiwul kenn lu waaye jot euh, sànni sa morom ma ñëw ci 313 bi indi loon turu jës bu bi nga fonk euh, jëysu ba euh, ba nga fonk ko lool ba tax na ñu jël ko sax dàkkantele ko Euh, euh, yan xeeti mbir lañ ci man a def Jason daal li ma ci xam ba xam ko mooy yi ma ci yor te di ko joxe mm-hmm. su ma la xoolee ba mu xam ne man naa la koo jox mm-hmm. foo man a toll boo nekkoon xale yow bu fekkoon yaa ngi ànd ak fukki nit mm-hmm. ñëpp yaa ciy féete kaw mooy bay rek te dan lay te dan lay te dan xam nga nit ki mën nay am alal te weesoo gut yàqule xam nga fexe ba olof ñaar li mu wax naan bala nga ne naam nekk fa xam nga mën am alal lool te yow amoo kaaraange bala ngaa dund yenn at yi sax jóge fi xam nga loolu alal jooju bañoon ko am sax ku gën dëgg la wallaay dëgg la man li ma lay def ma dan a aar ba pare mm. defal la loo xamante ni ci jëmmi trois cent treize yooyu mm. wërsëg moom da nga koy amee ba pare da ngay gudd fan da nga fiy nekk fekk ko dara du mën ci yow dara du dara du la mën a yàqal ndax lii mën a yàqal daa bëri doomu aadama day yàqale mm-hmm. rab yi dañuy yàqale ak ginne yi yi mm-hmm. ngay gis ak yi nga dul gis yëpp dañuy yàqal nit mais ñee da ngay mucc ci ñoom mucc ci ñii d' accord. Mhm. lépp ci 313. lépp ci 313 waaw kañ nga ma ciy dompat. waaw yooyu yow moom dana la ci jox incha allah. <laughs> incha allahu taala nga dugg ci fu am solo xeet da ngay mucc ci rab mucc ci euh, seytaane mucc ci lu mu mën a doon ci rab moomu ci lay ñëw doon loo xamante ni mi ngi sonal nit ñi donte nag gis nañ ne ñi koy faj bari nañu di sayloo nit ñeeg di maanaam di yeneen i façon euh, waa njaapat waa njaapat ñoom nan lañ koy faje waa xam nga ñun mm. jëmmi lépp loo xamante ni dañ koy faj mm. te ñu xam garab gi xam nga ñun ñoo koy jëndale suñu bopp mm-hmm. di ko di dina si bopp dañ koo mm-hmm. Mm-hmm. a gis te nit ñi fu ñu toll ñi ak seen i tawat ak seen jàngoro mooy waral jàngoro yii yëpp lu jëm ci ngelaw seetaan googu ngay tudd yor naa ci sungu soo xamante ni dañ ko def ci paquet ba mu rafet ndax day dem fu ne ci àdduna bi suñ la ko joxee ñetti guddi nga koy suuroo li nga doon faju rab bi nga doon faju ndax ngelawu seytaane lu ci ëpp ci rab bi bu ñu dugg ngelaw la lay duggee te ñii bu duggee ci ñoom da gis koo xam xamante ne heure bu ngoon jotee bopp bi day métti ñenn ñi seen ginnaaw yi di tàng jër suñu tëddee seen yaram yi du diis du xam li ko waral dëgg la ñenn ñi nag seen ndigg yi lay jàpp mm. ñenn ñi muy jàpp seen suuf tànk yi lépp ngelaw seytaane ko waral ndax day dox ci biir yaramu doomu aadama bi ñu bari dañ may faral di wax ne ma dama feebar dem naa hôpital gisuñu ci man benn jàngoro mais daal ku ma seetloo dama naan ngelaw moo ma dugg kon ngelaw loolu dañ ci defal ay cuuraay. gis nga ñi nga xamante ne dañoo tëdd ci hôpital yi yàgg fa lool. waaw ba mënatuñoo jóg. Mm. nga xamante ne seen tawat ji moom def na ci ñoom ay ati ati at. Mm-hmm. man ñooñu sunguf bi li ma ci fekk kenn xamul nu mu toll. ci sunguf si ci sunguf si. te yow te yow fa nga toll ngay nekk di ko suuroo. Mhm. suñ borom moo nekk nii gis ngelaw seeraan ak rab mooy bii. d'accord ñetti guddi guddi nag lañ koy suuroo ba guddi. waaw suñu si li ma ko defalee. li yi ma ko defaree garab yi. Mhm. benn bu ciy jaan drone amut fu mu nekk sax jaan du fa jaar jinne tamit drone garab gi. mooy sunguf si mooy sunguf si kër gu mu nekk sax dangay ngay musalaale xale ya fa nekk ci ay rab ak ki seytaane ki ñii daanu yu mel noonu kër gum nekk rek. sunguf si dina xat de. moo tax sunguf si moom ñi nga xam bëri na lool sax te ñu faj li ma jeeru ci yokaal dinaa la yónnee yëpp ci sa whatsapp. ci sunguf si comme que temps bi ko maye tey. waaw bu ëllëgee yow nga tegal ñëpp ñu diglu yokaal ñi nga xam ne jaar nañ fa ba sunguf si leen. incha ci ñetti guddi nag. incha allah ñi nga xam ne day métti seen digg yi waaw ku ci soxla na ma fëgg tubaarkàlla macha allah boo woowee sëriñ bi te mënoo koo jot euh, man dinaa waxu ba fi nga xamante ne mooy njapat dem jëli ci sunguf si yëpp ñëw jal ko fii waaye ba tey am na loo xamante ni ndax sëñ Cheikh moom séeréer la wala. waa sëñ Cheikh nag nekku séeréer. Hmm. man olof laa. olof laa waaw doomu olof laa d'accord ah. lu tax nga ma nekkoon ci cat te dañu wax ne cat ak rab ak yooyu yëfi séeréer la. waa xam nga xam dafa dëkkul fenn. Hmm. koo xamante ni sama am dafay bàyyi xam-xam. Mm. nga doon ko pare nag nangoo gëstu. Mm. jàng ba man ko. Mm-hmm. lu ne mën nga ko am ci xam-xam. ndax am na ñoo xam xam-xam jaral na leen lu nekk. dëgg la te day xam-xam mën ngaa jël xam-xamu pël. Mm. mën a jël xam-xamu séeréer mën a jël xam-xamu keneen xam li koy waral. Mm-hmm. nit ñi bu la ñemee ba mën a jëflante ak ñoom. te xam-xam bu nekk am na loo ko fa dikk bu ko bu la nit ki gisee ci yow ci lool rek mën naa yëkkati xam-xamam jox la ko d'accord ndax jëflante bu rafet mën naa indi lu ne cat moom ñi nga xamante ne cat daf leen di yàqal ci seen àdduna nga xam ne cat moo leen teree siiw wala cat moo leen teree am liggéey waaw wala cat moo leen teree sëy wala cat moo ba mu yàgg detteelu detteeluwaat waaw moo leen teree am doom wala lu mën a doon seen tur moom dafa mel ne dañ ko kaske fen tëj ko fa mënut a génn waaw su sunguf si moo koy dindi sunguf san mooy bii nii d'accord boo ko boo ko sangoo. Mhm. moom da nga koy boole xorom tàngal ndox ba mu tàng nga di ko jëfandikoo par guddi. damay garab nag yi ciy dindi yëpp yee xam ne day yàq. day mhm. day dindi yëpp guddi ba guddi nga koy jëfandikoo. guddi ba guddi nga koy sangoo. waaye bii tamit suuroo it koy suuroo nii. boo boo koy jëfandikoo jëmmi cat bi day leen ceew ba set wicc. ak ñi nga xam ne dañuy yeewu seen yaram yi di diis waaye ngay tëdd sax di gént yenn gént yi nga xam ne doo xam ne gént lan la. xam ñoo xam ne mënuñoo gént sax gént ko xaw a neex ñoom gént yu ñàng rek la ñuy gént fekk na yi nekk ci ñoom moo koy def am na ñoo xam tamit nit guddi mhm. daf leen di sonal bu ñu tëddee ñu ñëw di bës seen yaram yi mhm. ñuy onk am ñoo xam boo dend ak ñoom tëdd sax da ngay dégg seen onk doo xam lu ko waral mhm. yooyu yëpp am na ci ñoo xamante ne dañoo teg ci ndox rek tibb def ci tibb def ci ba ndox mi bax nga def ci sa yaram sangoo nga sangoo ñenn ñi nga xam dañoo tàyyel mënu ñoo sangoo ay sunguf yooyu sunguf si ki laa defar euh, safon bi saabu bi ah d'accord saabu bi ci laa ko defal mooy. da ngay teg rek sangu. bii tamit bu la neexee nga bàyyi ko sa tuwaaree ci sangu lépp lu sunguf fii man sa safar bi mën na ko. d'accord surtout ñi nga xamante ni dañu nekk bitim réew yaakaar naa ni ñooñu bokk nañ ci ñi nga xamante ni saabu boobu dina leen gën a arrangé. Mhm. waaye am na ci yenn ci xeetu jàngoro yoo xamante ni lu ci mel ni hémorroïde ndoxum siti yooyu bokk jàng doon jàngoro yoo xamante ni ñoo bokk daanaka ndey ak bàyyi laataa may ñëw ci dàllinkoor gi nga xamante ni moo sonal góor ñi nga ñëwal ma ci hémorroïde ak ndoxum siti ba pare waaye gis nga hémorroïde waaw dañ koy faj ba mu wér mhm. taban ni may koy faje benn sachet waaw xam garab yëpp nag euh, comme nii lañ ko defee d'accord xeeti garab xeeti feebar boo dégg mhm. am na garabam bu mel ni mënuñoo indi fii garab waaw ndax cabinet yi tas na ci àdduna bi waaw cabinet bi dinañ ci ñëw waaw am na ci yoo xamante ni xam nga na yoo xam ne nag dañu yor ay liggéey jàmbur suñu xalawatee cruise yeeg yooyu waaw gis ñu du yomb waaye lépp lu nit tawat mhm. defar nañ ko ci sachet ci numéro yi bi ñu ci wootee di ngeen xale yi danañ fexe ba ngeen ci hémorroïde sachet bii ma lay jox moo la koy faj ndoxu siti mhm. sachet bi toll nii ma lay jox moo la koy faj ndoxu siti as asma bi tamit bii moo koy faj d'accord asma bi beneen bi ma lay jox yëpp nii la toll damaa indi ndoxu siti bi lenn lu ci ne waaw am na lu koy faj ci sachet yu toll nii la benn bi ma lay jox moo koy faj asma ñu bari moom ndoxum siti dañu wax ne du wér lu waaw loolu xamul tax ñu ne du wér waaw xëy na bu njëkk amuñu woon xam-xam boo xamante nii wala ñi daa ñin daa jëflanteel amuñu xam-xam bu wér mhm. waaye lépp lu wér boo ko gëstoo jox ko nit ki da koy faj ba mu wér sa traitement bi ñaata temps benn sachet bii boo ko jëlee di ko jëfandikoo mhm. bala moo jeex nga wér te da nga ciy xëy suba même dafa génne ay ërëg ay góom ci yaram ak yooyu yëpp lay dindi d'accord te dama lay wax ni nga koy jëfandikoo balaa sachet bay jeex loolu faj ba wér moo xam asma nga am moo xam estomac nga am yooyu moo xam ndoxu siti moo xam jabet yëpp jabet bi sax bi ma ci yor moom. waaw soo commencé jëfandikoo ba mu yàgg boo la neexee de de del jëfandikoo suukar. dégg naa ne ñu ne boo ku ñëw dafay ñëw indaalee résultat testam yi nga xamante ni moom la mujjee def. su jëlee traitement bi ba pare delluwaat def test bi. ñëw méngale ñaari. ñëw méngale ñaari xam waaw. fu ko garab gi te man li ma gën a neex ci ñi may faj. mooy ay audio li ma ci yor ëpp na 60. dinaa ko déglu. audio yëpp dinaa la ko yónnee nga tegal leen ko. yenn yi dinaa ko dégluwaat. Mm-hmm, mais ba tey itam euh, am na loo xamante ni moom moom kenn kenn kenn kenn dootu ko nattable. moom xam-xam bi fan nga ko jëlee muy néew kàttan waaw xam nga néew kàttan waaw dafa bëri ñoo xamante dañ ciy communiquer mhm. naan mën nañ koo faj te mënuñu koo faj lool dafa bëri ñoo xamante dañ cee boole ay tappale mhm. ba ma ci soog a ñëw mhm. ay reen laa ci indi woon reen yoo xamante ni kenn mosu koo gis fenn ma def ko ci paquet yi ne la man dama lay jox loo xam ne ca ndey ja la jógee kenn du ko doo ko doo ko mën a gis fenn mooy mooy reen yi reen yi innaa nag sunguf soo xamante nii ni ma la nga tàngal ndox boole ko moom mais da nga koy mëq mm. boo xëyee mëq ci bu nga dee nga mëq ci waaye dara dara lu ko benn sachet bi man leen lu ne lu ma la jox benn laa la ci jox parce que nag dafa am ñoo xamante ni dañ la naan mëqal léegi 30 minutes nga dem jokkoo na si xool nga dem tabarkalla macha allah nga xëy xappi yaakaar ne mooy loolu. Mhm. mais ñu dawal tuuti far la nga amoon sax danaan may. day am waaye nag ñooñu nag mooy ñi nga xamante ne. mooy tappalekat yi dañuy jël waaw. loo xam ne nekk lu naturel di ko booleeg ay sunguf di ko joxe. d'accord man bi boo xëyee suba. boo mhm. ndékkee pare da nga ciy mëq. Mhm. naan ndox jàllale bu ngoonee ci saa mi nga mëq naan naan ndox jàllale. noonu nga koy def ba ni sase bi jeexee bu sase bi jeex yow ñaar yi la lay may kattan ak sëy gu yàgg ak ndoxum mën yu mu dollee ko bëri na ci ñoo xamante ni seen sëy li tax mënuñoo am doom mooy ñu ngi koy jiin jigéen ñi sa fekk na ci jigéen ñi góor ñu baree baree baree bare seen ndox man yi dafa man ni dafa wàññeeku te bàyyiwuñ ci xel góor ñi nag dañoo jàpp ne képp koo xam ne yow moo nga xamante ni yow mënutoo jaxasoog jigéen rek mhm. yow war nga mën a am doom mhm. léegi la da nga gis xam mën na ci xuloo soxnaam sax naa ko yow sama euh, sama docteur bi nee na nga ñëw faju góor gi ne ko man dara jotuma du ma dem dëgg la te fekk ñoom dañoo jàpp képp ku ci yëg sa bopp rek dara jotu la mm-hmm. te fekk na man nga yëg sa bopp bu baax a baax a baax mën a joxasoo lool mm-hmm. sa ndoxum man yu am jafe-jafe dëgg la léegi bu sa ndoxum man yi amee jafe-jafe fay ama doom yow nga xay giñ jigéen gi te fekk jigéen gi donc garab gi day faj yooyu yëpp moo tax garab gi dalay dollil ndoxum man yu ba pare dalay jox kattan gu dëgër ba pare sëy ba day yàgg day yàgg moo tax ma tudde ko góor day dëgër ko tuddee góor day dëgër allahu akbar <laughs> mbaa yëg nga ni dina xat parce que fu ne gars yi dinañ commencé di ma laaj naa man góor day dëgër bi nu ma koy amee Euh, en kaa daal li ma la man a wax mooy. waaw nga xamante ne garab yor naa ko fi. waaw yow yaa ci sama seede. képp ku ko jël bu la neexee na jël numéro soxna Mbayang retour yi na ñëwaat ci yow. ca man lay ñëwaat. yow kay yow kay. yi ma fi wax yëpp man dama lay yónnee ay test sax. kon jeex ma de. jeex na waaw waaw xaar ma waaw kay. Euh, mu mel ni garab yi euh, boutique yi léegi tasaaroo na ci dëkk bi. waaw fan ak fan nga am ay boutique waaw boutique yi bu fekkee ne ñi nga xam ne dañoo nekk diwaanu tuubaa mm-hmm. am na fa. ñi nekk Thiès. Mhm. am na fa ñi nekk Mbour am na fa ñi nekk dakaar am na fa. d'accord fenn fu ci ne rek boo fa nekkee bëgg a jot ci garab yi. soo wootee danañ la wax fi bitig bi nekk nga dem. jël ci garab yi ñu nekk Tëngéej fii ci kër Mbayang Thiam la. waaw kër Mbayang Thiam tamit danañ ko fi danañ ko fi indi képp ku nekk Tëngéej tamit. voilà mën ngaa ñëw kër Mbayang Thiam jël ci garab yi. mu ngoog. Mhm. looloo koy yombal 77 la 861 77 61 77 861. 77 61 wala nga def 78 138 38 70 wala nga waaxu ba fi nga xamante ne mooy njàppat wala fii ci euh, almadi tabarkàlla macha allah fu mu ci mënti doon rek boo wootee ak moom jokkoo ak moom ci euh, whatsapp am euh, dana la wax nan ngay def ba jot ci garab yi waaye lu jëm ci xeetu ñaan ak xalwa lu jëm ci wàllu rab ak ñàkkum am doom ak ñàkkum am borom kër yooyu yëpp dafa nekk koo xamante ni daf ci yëngu cheikh bi xam naa ne lu neex du doy waaye lu naqar itam du te neex na ba noppi gars yi kontaan nañu lan nga ñu ciy dolli. li ñuy wax daal mooy mboolem koo xamante ni. Mm. ndax ma dafa am ñaari yoo xamante ni dama ci am yërmande mooy ki ñu liggéey. ba liggéey bi jàpp ko. waaw ak tawat lool. moom liggéey da ngay merloo wax naa la ko sànq. te ñoom ñaar koo ci gis. waaw li ñu tuddee koppar da koy xaw a néew ndaxte bu fekkee tawat ji dafa yàgg ci yow. Mm-hmm. dem nga ci hôpital ba sonn wala nga ci dem ci sëriñ ba. sonn jeexal tàkk da ngay jeexal yonent bu dee tamit dañ laa liggéey am na ci liggéey yoo xamante nii day dem ba sa moom du la boole ko man dalay um um la ba sa xaalis jeex mm-hmm. mu commencé jël ci sa yaram muy jeex waaw ngay jeex di jeex da ngay dem ba ak boo xam da nga naan këlañ faatu mm-hmm. moo tax ñaar ñooñu moom ci ñoom laa gën a am yërmaane allahu ñaar ñooñu képp koo xam ne daal loolu dal na la fexee la garab yi ñuy joxe nga am ci boo mënee jot ci suñu jëm tamit nga jot ci suñu jëm yaa baax ndaxte dafa am ci moment yoo xamante ni moom ci eh, kurus geeg yooyu ci la ñu nekk ak xalwa gi ci xalwate yeeg yooyu waaye garab yi moom dafa bari dugg xalwa waaw waaw ndax yooyu bokk na ci yoo xamante xam nit ñi daf ci am yoo xamante ni. Mhm. da ngay dégg nit di ko wax muy li mel ne ay xeeti ay kayit yenn yi. Mhm. am ñaan yoo xam ne ñaanu fajo aaju dong moo ko mën te xalwatoo ci gën a gaaw. xalwaa ci gën a waaw te nit ki. Mhm. heure bu yëkkatee jox la. fexeel ba defal ko loo xamante ni li nga koy defal du mooy. dafay sedd xolam dafay sedd xolam. guddi yi ñu toll politique bi doy waar lool xëccëw bi bari lool tax yéen ñëpp euh, ñu ci bari ci yéen wala boog kenn ci yow nga jógee ba Touba ñëw fii ci Almadi Almadi moom coono du fa dëkk dëgg la dëgg la nañ wax li fi nekk rek dëgg la ñëwal ñu ci wala ñu bàyyi noonu mu sedd. waaw bàyyi noonu mu sedd. Hmm. <laughs> mbaa di nga fa recevoir sama classe gi mel ni man nga xam ne dañuy jooytu rek. waaw xam nga na fu ñu leen di recevoir ñëpp la ñuy recevoir te yi képp koo xam ne woote nga ci. Hmm. di nga jot ñoo xamante ni danañ waxtaan yow bu fekkee ne moom gis gi war na war na suñu diggante yow da gis incha allah. Hmm. incha allah. am na lu ma jeexalee de yoo xam ne da nga defante lool mais malheureusement euh, temps bi daf ñu xoj waaye xanaa nga ñamal ci gars yi rek. dégg naa sa mbir la de waa jëmmi nopp hmm. du ma ko defal ñaar ñu sëyut ci biir néegu sëy laay ñëw boole leen man ndax damaa bëgg li nga xam ne yàllaa ko boole man may ñëw di ko gën a dëgëral. ki jëkkëram woon ginnaaw ak ñoom ki jëkkëram woon ginnaaw xeeti na dégg naa jigéen ñi moom côté boobu moom gongo la ñu wax ki jëkkëram woon ginnaaw waaye ñu nekk ci biir kër gi nga xam ne dañuy wanante ginnaaw du nuyoog yooyu waaw am naa ci boo xamante ni nopp 24 heures la yàgg waa ji bi ngeen toogee nii ma jox la ko mm. nga jox ko waa ji mu fexe ba ni ma la koy jëfe wax ni nga jëfandikoo mu jox ko ko mm. bala ngeen a jóg ci jotaay bi nob bi jàpp am na ci nag boo xam ne ñetti fan lay lay diire moo tax nob moom képp koo xamante ni tëkkoo ndax nit ñi dañ naan dama ko bëgg a takk damaa te fekk na ay tappale rek yow daal takk gi ba pare daal takk gi daal man daal ñaar ñi nga xam ne xës nañ ba dugg ci néegu sax ay jafe-jafe am ci waaw jafe-jafe yooyu laay réglé am ci ko defal ku góor di ko defal ku jigéen ku góor ki ak ku jigéen ki yëpp laa koy defal mais jigéen ñay xaritam dégg ndax bu ko defee <laughs> jafe-jafe yi mën a jóg ci biir néegu sëy yi ndeysaan ndax njaboot yëpp mën a boole jubóo xale yi bëgg xale yi bëgg loolu a gënu koo neex waaw man loolu fa laa sawar mu ngi noonu ma bàyyi la nga tàggoo mbokki internet yi ñu joxante rendez-vous sous peu de temps parce que bëgg naa ñu dellu siwaat fi natt garab yi fu mu toll ak surtout góor day dëgër boobu kon baax na yéen ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. Mhm. di wax ne soxna Mbayang kontaan nañ ci yow bu baax. ak jéego yi nga xamante ne dox nga ko ba egsi ci ñun. Mhm. xam naa ne daal képp koo xamante ne yàlla dogal na. Mhm. suñ garab yi nga am ci wala ngay jëflante ak ñun. Euh, soxna Mbayang la ñuy jël def ko suñu diggante ak moom. gars yi ak ma gaawoo. sama numéro dafa la defee waaw tey nañ ñëpp am sa numéro nga xamante si ne. <laughs> yow ñi nga xam ne tamit nekk nañ côté Dakar gii mhm. suñ bëggee jot ci garab yooyu tamit nan woo soxna Mbayang incha allah danañ bàyyi fii ay garab yoo xamante ni soxna Mbayang nan leen ko mën a jot la bu soob yàlla allah incha allahu taala incha la boroom Jeysu moom lañu ñu àndaloon euh, tey euh, ci émission bi euh, ñu jëlee ko ba njàppat indi ko fii ndax jàpp nañu ne askan wi feebar nañu lool tànk yaa ngay metti ma ngay neew yi biir yaa nga diis gann digg ginnaaw yaa ngay tàng jër ak ndigg yi Euh, surtout nag ñi nga xamante ni ngelaw da leen a dugg di leen ronger di leen yàqal fu ne dem nañ fa docteur lu gis dara nañu jokkoo ak moom ñi am jabet itam bu ñu ragal dara bu ñu tiit dara nañu jokkoo ak moom incha allahu taala te nag ci ki mu gën a am yermande mooy ki nga xamante ni jeexal na tàkk xanaa kon ay wax day jeex wax ju yegg dafa ko moom mbokk yi rendez incha allahu taala très prochainement lay doon ak beneen gan ci biir Kër Mbaye asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh fi amaanillah jaajëf libaas sama technicien du jour maa ngi jéglu tey nuyu ma la waaye kontaan rek ci yow jaajëf